demoon euh. depuis le 23. effectivement ma gis may woo sama téléphone parce que comme damay tëj sama téléphone parce que les gens ne comprennent pas que soo voyagé da fay le trafic international. ma gis may woo plusieurs fois bi ma ko jëlee ma ko yaa may woo mu ne ma waaw c'est les renseignements dañu bëggoon waxtaan ak yow ci fonds yooyu ngay wax ma ko effectivement ñu waxtaan c'est quelqu'un nag très gentil ñu waxtaan ba ma ko maa ngi écourté jël Cap Vert ma egg si Dakar ma egg si Dakar aéroport ñu jël sama passeport yóbbu ma police taxañ ma je dirais même une humiliation yóbbu ma maa ngi nii ci police bi toog di xaar et je ne pense pas que moi je mérite ça dafa ma ci dëkk bi lu ñu may Europe ba ma dëkk sax kenn musuma faa toroxalee nii te li ma wax loolu la Sénégal gi wax xale yaa ngi dee ci géej gi tey il est temps que ñu xoolaat xaalis bi ñuy dugal dans le cadre benn séminaire bu ma doon animé bi coow lu la représentante de l'Union européenne bi fa nekkoon ni ma monsieur Sey ñun on a beaucoup fait dinaa la jox lépp j'ai la liste ici ça fait plus de cent quatre-vingts millions d'euros cent dix-sept milliards de francs CFA ñi ko jox ak loolu maa ngi moom fi et je mettre ça à la disposition de la presse et des enquêteurs c'est ce que j'ai dit je crois que loolu su ma ko defee damay jàppale état bi mais kan njiital ONG Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye ba tey ji nag mu ngi ci loxoy section recherche gendarmerie bu Colobane loolee nag gannaaw bataaxal goo xamante gendarmerie jotoon na ko dem ba daal di laaj ñii di waa police ngir ñu daal di koy teg loxo bés bu tegee ay tànkam ci biir réew mi police daal di tënku ci bataaxal googi teg ko loxo ci àjjuma ji foofe ci aéroport international Blaise Diagne gannaaw ba nga xamante ne moom Boubacar Seye mu ngi bàyyee ko foofe ci Espagne jébbal ko gendarmerie bi nga xamante ne jotoon na ab bataaxal ci procureur ngir ñu daal di koy teg loxo loolee goo xamante ne ñu ngi ko daal di yëkkati gannaaw moom Boubacar Seye ba mu daal di yëkkati ay tuuma teg ko ci ndoddog nguurug Sénégal di xam le ni koppar yañ leen joxoon ngir ñu daal di xeex lépp ci wàllum mbëkk mi dañu ko daal détourné am feneen fu ñu ko dugal ci benn interview jamono ji ñuy wax nag moom Boubacar Seye ma ca garde à vue foofe ca gendarmerie fileeg altine di xaarandi ñu daal di enquête bi lé maître Amadou Diallo euh, nekk euh, nekk tamit euh, ci Amnesty yi euh, kon euh, client am ñu euh, déglu ko. Sénégal jamono ji mel ni ñuy solee masque bëggatuñu kenn wax te Boubacar Gueye xam sénégalais la bu dund Sénégal bay famille am Espagne nekk Sénégal nag chaque année day dem foofu fin pour seeti jabaram ak ay doomam donc dafa dem mois de décembre bi bu muy dellu si police ak gendarme xamoon nañu tel bés lay dellu xamoon nañu tel lay dellu si à deux heures du matin ñëw aéroport fekk ko foofu jàpp ko bu ñu ko jàppee eh bien ko lu tax ñu jàpp ko moo tax Amnesty International mais quand nit ki soo ko war a jàpp da nga wax lu tax nga jàpp ko man moo tax Amnesty International man mandaté ma ma déplacé dem aéroport ma yeggee foofu ñoom indi nañu ko section de recherche bu ma section de recherche fekk ñu entendre ko ba pare. lan lañ koy toppee ak ci lan lañ ko entendre. mais justement par rapport à ces déclarations là yu mu defoon à l'époque si loolu ko entendre amul eh bien que ces fonds ont été mal utilisés jàpp ne loolu quand même jaaduwul dans un état de droit. lan mooy nekk seen taxawaay. non mais en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme mooy dañu on exige sa libération immédiate maintenant en tant qu'avocat dañuy toog parce que dëgg naa ni il a été placé sous en garde à vue euh, fii ba léegi en fonction des décisions bi jël ñun dañuy xool benn pexe la teg. pour dem ko fi jëlee lu mu gën a gaaw professeur Amsatou Sow euh, Sidibé moom itamit euh, di ñaawlu la ñu teg euh, loxo Boubacar Sèye bëgg itamit ñu daal di koy bàyyi ci na mu gën a gaawee. honorable Boubacar Sèye bu Nouvel Horizon sans frontières dañu wax ne dañu ko jàpp ba mu wàccee aéroport ay AIBD man may seet lan mooy tax ñu ne dafa am lu mu waxoon ci mbirum xaalis bi ñu waroon a joxe pour mbëkk mi dagg ci suñu réew pour xale yi bañati di jël gaalu looco yi di des ci biir géej gi ñu ne nag loolu lu ëpp la ndax kat moom mu ngi toppatoo loolu mooy domaine am affaire wu euh, ñuy dem ci mbëkk mi day xeex pour loolu dagg te loolu xeex ko dañ ko soxla lool lool ndax dafa yàq xale yi léegi dafa gaañ réew mi kon bo bu demee ba ci xeex bay saytu di xool ndax nañu war a jaarale yëf bi ñu ngi ko ci jaarale wala déet ñu ne dañ ko naan teep jàpp ko aéroport bëgg ko sewal bëgg ko toroxal te muy nekk nit ku yiw koo xam ne day xeexal askanam d'accord uñu ci ñu ñëpp ñoog Boubacar Seye tey benn lañu la mu def ñun noonu lañ ko gisee te dinañ ko wax tey waxaat ko ëllëg nañ ko libéré li mu def dara aayu ci ndax alalu askan la alalu askan dañ koy saytu dafa ne nañ ko saytu